bisimilah rahmaani rahiim barke borom Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo yu gën a sell di leen nuyoo fii ci barab bu sell bu màgg bu tedd bi jumaa ak Cheikhul Xadim gi jiital ci nuyoo yi ak ziyaar yi saaxibul fadilati Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ko ñaanal. ak wër ak kàttan ak yàgg lool te naal yi mu naal ci yoon wi ak murit yëpp mu yeggale ko ñu ànd koog moom te mu naalaat yeneen ci barke Cheikhul kon mu mel ni tey jii eh, ñu ngi fii ci barab bi nga xam ne mooy jumaa ji ci bés bu màgg bi wala gudd gi màgg gi nga xam ne moom la ñuy dëgmal muy di mawludi nabi ñu fës yéene koo dundale fii ci jumaa ji ci ndigalub Serigne Touba. ndax Cheikh Sidil Muxtaar ci ak nekkam moo joxoon waa muqaddimatul xidma ànd ko ak waa du raayin ñuy dundal gàmmu gi fii ci jumaa ji daayira ilhaamul latiful xabiir nag di benn pàcc di benn bànqaas bu bokk ci muqaddimatul xidma teew fii ci jumaa ji wara a ànd ak muqaddimatul xidma ak rawdu raayin kon ci noonu ci gàmmu gi incha allah rabbi ñu fas yéene koo ànd kon kaddu yi ngeen di fas yéene dégg ni mu ngi tukkee ci Jibril Fall secretaire général daayira Ilhamul Latiful Xabir waaye ci ndigalub sun jëwrin Baye Assane Yadd kon xam naa dañuy ubbi su ko defee ñu taatan laaj yi lépp loo xam ne rek war nañ koo gën a mën a leeral ci liggéey bii nga xam ne incha allah rabbi moom lañ nar a fanaan ba bët set incha allah rabi ñu ñu leeral ko. bu ko defee ñuy santaat bu baax a baax équipe technique gu euh, MKTV di mbooloo mi nga xam ne ñoom itam liggéey bu am solo la ñuy def jëmale ko ci wasaare lépp loo xam ne ay xibaar la yu tukkee fii ci jumaa ji kon buñ delluseewaatee ñuy santaat bu baax a baax a baax mbooloom daayira Ilham Latiful Xabir yëpp ci seen teewaay di sant bu baax a baax. waa muqaddimatul xidma tàmbalee ca bopp ba sëriñ Afia Bousso imam mu mel ni kon niñ ko waxee rek incha allah rab yi ñu ngi fas yéene ànd ak muqaddimatul xidma liggéey bi nga xam ne bañ ko àndeek léegi yàgg na waaye tey ci guddi gi nga xam ne mooy guddi gàmmu gi incha allah noonu lañ fas yéene ànd ak ñoom ci liggéey bi mu mel ni kon mbooloo mi bi ñu yegg see rek ñii nga xam ne démb ay boori une ci guddi yegg si nañu ñeneen ñi yegg si ci bëccëg bi ñu xëyee rek li ñu njëkk tàmbalee def ci bës bi mooy lal tàpp yi ci barab bi nga xam ne fa la ñuy gàmmoo te ren ji mu mel ni waajtaay wi gën naa yaatu lool ndax niñ ko soppee ci bâche yéeme na lool kon bi ñu xëyee rek dañoo fexe gën a taaralaat barab bi ci lal tàpp yi ba bu gan ñi ñëwee rek ñi war a gàmm bu ñëwee rek mën a dallu bu baax mën a mën a nekk ci barab yoo xamee ne dana dana dana mucc ayib ba ku nekk mën a teewlu bu baax a baax a baax ndax xam nañ ne tey guddi gi guddi gu am solo la ci wàllu ñaan ci jëf jëf ju baax kon képp ku koy def war ngaa nekk ci ay conditions yoo xamee ne yu mucc ci ayib la te kon mel na ni. ñun daf dañoo war ci ñun ñu war a saytu loolu ba ñiy gàmm si bu ñëwee rek nekk ci condition yi waaye biñ noppee ci loolu ku ne gis na tey jii ci suba rek dafa xëy maanaam asamaan si soppeeku di sotti ndox nga xam ne kon jumaa ji euh, bu tawee rek day tooy te karo yi ak tooyaay àndul bu bu ko kon bi mu sewetee rek ci la mbooloo mi jóg dem fépp foo xamee ne fu tooy la rek. tàmbalee ci biir jumaa ji génn ci yokk bi ba ci ëtt bi yëpp fépp foo xamee ne tooyaay nekk na fa ñu génne ko ba mu set wecc ndax kat tooyaay ak karo yi dafa àndul bu loolu noppee ñu war a jàll ci yeneen liggéey yi nga xam ne moo des ci suñu kanam léegi nii rek incha allah rabi danañ wëyal lalu basan yi ndax kat gannaaw bâche bu màgg bi nga xam ne moom la ñu waajal ngir kilifa yi ak euh, kuréel yi ak euh, jànkatu barsan bi pënc mi yëpp li tàmbalee ci penku bi ci sowus bi nga xam ne soxna yi ñoo fay nekk ci penku bi góor yàlla yi lépp dañ koo fas yéene lal ay basan ba nga xam ne ñu ñëw rek gàmmu si mën a jekki-jekki bu mucc ci ayib kon basan yooyu itam incha allah rabi léegi ñu tàmbali lal ko fexe fépp fi ñuy gàmmoo fees del waaye noonu lañuy ñuy woyale liggéey bi ci guddi gi ci gëtël ak xeeñal fi nga xam ne fi lañuy ñuy gàmmoo ci parfum ak cuuraay guddi gi yëpp kon loolu dañ koy fanaanoo waaye itam kuréel gi dana ànd ci ñetti kuréel yi nga xam ne ñooy ame njàng mi mawlud bi ku ne xam na ne kon Euh, gàmmu gi fii cosaan li ci jumaa ji niñ koy defee mooy na ko sëriñ bu baax ba sëriñ bu mag bi daan defee ca njaareem rek nga xam ne ñetti kuréel kuréelub jazbu kuréelub mawaay bu naafi ak kuréelu muqaddimatul muqaddimatul amda ànd ak barsan bi nga xam ne buñ fu ñu jàng fukki bunt ak ñaar bu yegee ñu jox barsan ñu jàng fukki bunt ak ñaar ñuy woyal noonu ba bët set kon kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy taxawu muqadimatul xidma waa daayira ilhamatul xid waa muqadimatul amda waa daayira ilhamulatiful xabir ñoo koy ñoo koy amee kon noonu la ñuy fanaane guddi gi incha allah rabbi bu bët set waaye bu bët setee balaañ fee bàyyi ko balaa ñoo yeyoo ko incha allah rabbi fas yée nañoo yéene yee salaat jumaa ji ci biir ak ci biti ci lépp loo xamee ne daf cee daf cee tàbbi ci ay taq-taq nga xam ne guddi gi yëpp gannaaw mbooloo mi dañuy bari ci barab bi bu noppee kon du dana aajowoo ñu yeesalaat barab bi incha allah rabbi balaa ñoo yeew ko ci biir waaye ci ak ci biti kon lii mooy li nga xam ne incha allah rabbi waa daayira ilham latiful xabir fas yéene nañ ko ànd ak muqaddimatul xidma ak rawdu rayain ci liggéey bu am solo bii nga xam ne moom la ñuy defal Serigne Touba fii ci barabam bu mag bi waaye liñ ci dolli rek mooy waajtaayu gàmm wi dañ ciy jéem di jéem rek di jéem roy ci waa muqaddimatul xidma ndax ku ne gis na seen taxawaay ak seen jëf ni mu yaatoo kon moo waral bi ñuy ñëw rek soxna yi nga xam ne dañoo feete ci kuréel gi dañoo fekk feete ci ci daayira bi waajal lu toll ci juróom-ñetti paan paan yu mag yi ñu waajal ko ci ay beñe lépp ndax kat guddi gi julli ci yonent bi salaam jàng alxuraan jàng xasida waaye it berndeel berndeel yu kon ci la bokk looloo waral beñe yooyu ñu waajal ko ngir lépp jëm ci ñi nga xam ne dañuy teew ci barab bi waaye itam dolli ci meew moo xamee ne toll na ci ñaari saaku ñu ñëw defar ko ak benn saaku suukar lépp rek defar ko ngir jaam yi nga xam ne tey jii fas yéene na fanaan fii ñu berndeel leen ko kon loolu lépp nag niñ koy ànd ak Muxaddamatul Xidma rek mooy bu ñëwee rek lu ci nekk rek seen digal lañ ciy déglu nuñ ñu ko digale rek noonu lañ koy noonu lañ koy ànd ñoom kon lii mooy li nga xam ne moom la moom lañ leen bëgg a leeral ci liggéey bi nga xam ne daayira Ilhaamul Latiiful Xabiir mu ngi koy amee fii ci jumaa ji di santaat bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi di jiital waa Muxaddamatul Xidma niñ ko waxee sànq rek ci tàmbali bi jiital sëriñ Afia Bousso al imam nga xam ne taxawaayam mat na yaatu na lool lool lool lool ak yéenam ci mbooloo mi yaatu na lool waaye di sant ak gërëm ak ñaanal bu baax a baax mboolem jëwrinu muqaddimatul xidma ak fuñ fi mën di nekk ki ci gën a ndaw ba ki ci gën a kawe ñëpp ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax xam ne kat ñun de waa Touba Ngoy waa daayira Ilhamul Latiful Xabir Touba Ngoy sallaaw de dañoo fas yéene nekk seen dong rek di tëb seen kaw lépp loo xam ne bëgg ngeen ko mu jëm ci sëriñ bi rek incha allah rabbi luñ ci mën ak luñ ci mënut luñ ci mënut sax danañ ko jéem def niñ ko ni ngeen ko bëggee saa suñu luñ lu seen yitte daal moom la ñuy jaamu saa su nekk ci barke Cheikhul Khadim kon yàlla nañ ko teewe ay déwén ni déwén te lépp di dajeeg mu sëriñ Touba saa su nekk su ko defee kon ñuy yamale kàddu yi foofu di santaat bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa radiyallahu an cheikh alqadim wa ala ahli tariqatihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen di siyaara di jiital ci nuyoo beeg ziar bi cheikh Mouhamadunil Muntaqa ayyadahu llahu wa nasarahu mi fi nekkal cheikhul xadim di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko te guddal aw fanam mu yàgg fi loolu yàggu kéemaan euh, fii ñu nekk nag euh, ñu ànd ak euh, daairatu ilhamu latiful xabir waaye fekk si suñu ay mbokk waaye suñu ay jëwrin suñu ay kilifa waa daairatu muqaddamatul xidma ci seen njiit imam Baye Cheikh Afia Bousso Euh, moom it di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ak mbooleem euh, daairatu muqaddamatul xidma gépp ñëw fekk si leen tey incha allahu ci bés bii nga xam ne euh, mooy yowma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam muy guddi gàmmo muy bés boo xam ne sëriñ bi fonkoon na ko njabootug sëriñ bi it fonkoon ko lool ñu fas yéene ànd ak yéen tey jii fos yéene dundal guddi gi ñu leen di présenté rek liggéey bu am solo bii nga xam ne moom la soxnay ilhaamulatiful xabir waajal ngir fas yéene ko ànd ak yéen ci li nga xamante ne nii moom mooy gàmmu gi. Euh, waajal na lu lu lu takku ci ay xiiwal euh, bokk na si ñaari saakuy fëriñ moom ngeen di gis nii muy beñe yu murite yoo xam ne fa tabaarakallaahu mën naa ànd ak euh, guddi gi. ndax ni ko sëriñ bi jàngalee ci mbooleem li nga xam ne nii moo jëm ci wàllu bernde moo xam lekk la wala naan ñu def ko ci bés bi yaakaar naa tuyaaba ju rëy rëy la. moo tax moom ngeen di seen nii waaye itam bokk na ci itam euh, li nga xamante ne ni moom mooy suukar ak euh, meew am na ci yoo xam ne nii ci euh, bërëbu maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko war a yóbbu xam naa jawrin dana ko faram-fàccee niki noonu it ànd ànd na ca ñeenti juróomi karton yoo xam ne wàllu parfum la ñu fas yéene it incha allah mu bokk ci liy dundal guddi gi muy liggéey bu am solo boo xam ne nii soxnay daairatu ilhamu latiful xabir ñoom ñoo ko waajal euh, waaye itam di leen sant di leen gërëm di sàkku ci yéen bu baax a baax ngeen ñaanal leen ndax liggéey bi ku ko gis xam ne Pastef nañ liggéey la boo xam ne it bu rëy a rëy la kon ñu ngi sàkku ay ñaan bu baax ngeen defal leen ko lépp loo xam ne sëriñ bi euh, wax na ne ku ko def ci guddi gi ci euh, xeeti tuyaaba waaye itam xeeti ak yool Euh, te mu jàngale ko ci ku dem ci na euh, téere bi nga xamante ni mooy jasbul xulub da nga fa fekk mu wax fi am ama am solo euh, yàlla nañu suñu borom boole ci li nga xamante ne ni moom mooy yool boobu ñu am ko am ci lu kawe suñ jor euh, nam ko waxee woon it ñu fas yéene koo dundalee noonu te mooy taasimuhu bi sunnatin loolu rek mooy mooy li ci am solo kon bu ko defee ñu ngi wax ci kaddu yi Baye Jëwrin Baye Xasan Yadd ak euh, Baye Abdoulahi Pouy ak mbooleem daairatu ilhaamul latiful xabir di leen jaajëfal bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. santati yàlla julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam sant ahmadul xadim lu yaatu kenn du ci dara gàmmoog 2024 dogal xamoon na ci ësël te daañu ca yegg ay soxna yu tuuti dana leen dugal ci seenu xol pas-pasub jàpp ci gàmmoog Ahmadul Xadim kon loola la sant nañ leen bu baax yéen waa Ilhamul Latiful Xabiir lii moom yéen la du ñun ndax bu dee daa yaatu yéen a ko yaatal yéen waa Muxaddamatul Xidma daa mel ni bu ma dee bëgg wax ci Muxaddamatul Xidma damay damay damay ndax waaye daal lu mënti xew jëf moom lu mu rëy rëy mbaa lu mu tuuti tuuti jërëjëf képp a ci war a te kuñ ko wax te jëfoo sik amul ci ne xam nga xel dañ lay nax kon yaa yéen waa daayira ilhamul latiful xabiir rawatina soxna yi ci kaddug sëñ Afu Buso imaam kaddug sëñ Fallu Mbakke kaddug mboole seen jëwriñ yi ŋànk liggéey bi sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax tey ñaan tey ñaan lii sax dàkk déedéet na sax dàkk bu mu yàgg yàgg daa am fu mu yem na sax dàkk ñu ànd ko ba kanam Ahmadu salaamaaleykum wa rahmatullah